Cheikh Ibrahima jaay maire de la commune de Thilmakha tey ñi ngi ñëw fii ci Thilmakha pour visiter ay projet yu am solo yoo xamante ni FERA ñoo ko dugal ci biir commune bu Thilmakha su ñuy wax FERA mooy le fonds d'entretien routier autonome ci bopp bi euh, son directeur général Pape Ibrahima fay jiite ko ànd ak délégation bu mag bi yëpp ñëw tey ak le directeur technique ak tout personnel technique différents ñu ñu visiter tronçon bi nga xamante ni nekk na une vieille doléance pour cette population la parce que jaar fi dem ba cilmaxa dana toll ci huit kilomètres six cent mu nekkoon ay jafe-jafe yu am solo waaye tey ak li entrepreneur bi wax léegi ci suñu kanam ñun ñëpp ñu dégg ko ci fii ak weer dina livrer chantier bi kon maa ngi wax waa population bu yeew ak waa population bu di ba cilmaxa ñu dalal seen xel te xam ni ñun euh, dinañu ko topp ba livrer chantier bi ci délai yooyu waaye nag bu loolu mënee am nañu ko sante le président de la république son excellence monsieur Macky sal ndax moom moo fi indi plan Sénégal émergent équité territoriale bu mu koy wax ci plan boobu la bàyyeekoo donc cilmaxa tey ñeewul dara taax yi euh, vraiment loolu mu nekk lu am solo parce que tey ñu ñëwee fii ñu ne mën naa ni dëkk bi bu amul téeméeri ak jege na ko mais bi mu amee courant ak léegi matul ñetti weer c' est grâce à son excellence le président de la république Macky Sall boo xoolee plus de vingt six villages électrifié nañ ko ci diirub ñaari at loolu vision la loolu mooy équité territoriale dina tax ñi dëkk ci àll bi daan dem di jëgaani ci taax yi danañu mën a toog ci dëkk yi bu gën a dundal dëkk yi pour mën a mën a liggéey ndax courant mooy lépp yoon mooy lépp loolu mooy développement te tey jël ma xa ñeewu ci kenn kon mention spéciale au président de la république ngi sant bu baax vraiment monsieur le directeur ñu ngi vraiment di la sant di sant le ministre Mansour Faye mi nga xamante ni tey moom la yebal fii nga nekk ndawam di sant le président de la république Macky Sall vraiment boo demee ne ko cilmaxa day amel nan ko njukkal waaye ci cilmaxa aussi ñi ngi koy sant bu baax a baax baax ci jàppale gi mu jàppale commune bi. woon euh, fond d'entretien routier dafa ñëwoon ci commune de Cilmaxa pour def li nga xam ni mooy visite de chantier li nga xam ni am nañ fi. Euh, parce que dañu financer euh, li nga xam ni toll na ci à peu près cinq cent millions commune de cilmaxa cinq cent millions yi muy huit virgule six kilomètres bi nga xam ne de piste bi nga xam ni war nañ ko def entre Thilmakha euh, Digne fii ñu nekk ni ak tamit deux kilomètres de voirie bi nga xam ne dañ ko def tamit ci biir Thilmakha commune de Thilmakha pour que éventuellement lépp li nga xam ne mooy déplacement yi nga xam ne war nañ ko def ci biir commune bi ñu mun ko def loolu nag buñ ko defee ci vision euh, chef de l'État le président son excellence le président Macky Sall donc li nga xam ni tënk na ko ci euh, PSE mais dans sa deuxième phase euh, PAP 2 mi nga xam ni lépp li nga xam ni mooy infrastructure de qualité war nañ ko développer ci gox-goxaan bokk na ci li nga xam ni Sénégal pour tous bi nga xam ni yàgg na ko wax bi nga xam ne Sénégal de profondeur wane ni ñooñu si noonu bokk ba nga xam ne lii donc nekk na ndigal bi nga xam ne moom la ñu ñëw traduire à travers la commune mais féliciter euh, le maire mais féliciter aussi entreprise bi parce que gis nañ ni pratiquement quatre-vingt pour cent travaux yi donc euh, jeex na et fii léegi benn weer incha allah rabi donc mun nañu wax ni. population wu Thilmakha daanu réceptionner seen bopp te dana permettre un peu désenclaver Thilmakha mais dana permettre aussi li nga xam ne mooy production agricole bi nga xam ni moom mooy développé autour de Thilmakha donc mu gën a yomb dugg ak bi. aussi le directeur général du FERA ñu ànd ak aussi ak entrepreneur chargé aussi de l' exécution de ces travaux ñu wax ni aussi lii ci gis-gisu président de la république ci vision mu amoon gis-gis pour désenclaver intérieur du pays bi. tey aussi commune nu Thilomaha aussi bénéficié na ci pour une distance de 7 kilomètres 600 bu ñu xoolee ci montant bi presque 147 millions la. ñu wax ni aussi tamit lii ci arrondissement bi yemul sax Thilomaha même la commune de euh, Niakhène commune Mbayeen ak commune bu Ngandiouf ñoom ñëpp bénéficié na aussi ci financement wu FERA grâce aussi à la politique du désenclavement de du chef de l'État ñuy wax ni aussi tamit fii ak euh, dans un mois lu engagement bu entrepreneur bi jël. dinañu livrer chantier bi parce que nous sommes très rassurés et satisfaits en tout cas ci démarrage yi travaux yi parce que presque def nañ 4 kilomètres lu si des dans 2 kilomètres moo ci des ni te dans un mois aussi dina ko livrer mais au delà ça aussi cérémonie bu mixte la ñu ngi fii si tu chantier bi mais ñu ngi jem aussi Thilmakha pour encore def lancement travaux pavage loolu tamit dañoo obtenir financement ci FERA pour un coût de 450 millions donc lii moom ñuy wax ni sant yàlla la te aussi urgence mu nekkoon ci population bi tey grâce aussi à la politique du chef de l'État ak aussi taxawaayu maire ak taxawaay aussi institution état bi tey ba population di Kajoor ñu mën cee bénéficier wu. donc euh, ñu ngi di gërëm ñëpp di sant ñëpp aussi di remercier aussi directeur général FERA di remercier aussi monsieur le maire ci engagement am ak taxawaayam ci côté population bi mais surtout aussi entrepreneur bi mu ñu jox aussi assurance et dans un mois dinañ fi ñëwaat pour maa ngi